waaw fi ñu fas yéene jëm ak ak ñoom mooy ñun dañuy woote benn ndëpp ndëpp nag boo ko déggee si ñu lébu yi ku ami ku ami rab lay doon mm-hmm. rab rab bi nag moom dangay ngay jàpp wayam mm-hmm. nga koy woyal ki mu jàpp mm-hmm. muy fecc ba keraa mu koy bàyyi di ko neexal ndëpp loolu la ñuy def yaa ngi dégg képp koo xamante ni ki bokkoo si ñun am na décision yuñ ñu jël ñun wax nañ sax état ni ko est-ce que ñu dooñu as ñun ñu waat assermenté wu mm-hmm. pour ñu jàppale leen ci mm-hmm. sécurité routière mm-hmm. mais ñu ni loolu du ñu ko def parce que bu ñu ko defee day ngeen di yor rôle gendarmerie wala police mais gendarmerie wala police am na loo xam te ne bi bala ñu ko xam ñun ci li mais dama ne li ñuy def te ñu xam ko suñu bopp xam ñi koy def buñ ñu assermenté woon ñun mën nañ leen see jàppale yaa loolu mooy lan waaye bi si des ñoom ñi nga xam dañoo nekk si seen biir muy gendarmerie ak police am na suñu jub am na suñu jubul mais oto mën na jóge si Ziguinchor am une semaine yoo xam te ne mu ngi gaara jabaram di leb dépense hmm. mu jóge si Ziguinchor di ñëw hmm. te wóor na que ni bu ñëwee bor yi mu fekk du ko mën a fay hmm. ndax la lan koo romb mun la arrêté tracasserie bi voilà te duñ ci wax te loolu dañ ci war a wax te loolu luy créer accident gis nga mbaam soo ñun ñi daan dëkk si àll boo ko musaan war ba mu daaneel la xam nga nooy def da ngay seet bu dëgër nga yeew ko bu ut yet bu mag ndax sa xol mooy tàng oto noonu la mel bu njëkk dañu war boo duggee si chauffeur bu ko waxloo bu ko tooñ bu ko saaga mhm. parce que boo ko defee mën naa jaaxle nangam nangam mhm. léegi dañuy dóor chauffeur sax mbéj mhm. sa alkaati yi bu jël sa permis saaga la gendarme yi jël sa permis saaga la te doo si mën dara man barke démb rek laa tàggale ak chauffeur ak gendarme muy jooy xaj si nu mu ko def voilà te loolu yëpp dañ ci war a wax. te ñoom ñu ngi wax ni même même boo demee ci commissariat yi mun a wax ba am dëgg seen kaw. te waaw te loolu nag. te mm-hmm. loolu nag mm-hmm. du du yëpp du gendarme yëpp. Mm-hmm. mais corps boo gis am na ñu baax am na ñu bon. ñun suñu métier mi am na ñu xam ñu ngi si biir. suñ ñu mayoon digal ñun ñu génne leen parce que day tax ñu ñu yàq ñu baax ñi. loolu nag daje moo koy waral gendarmerie police. état kenn ku nekk ñu wax la li ngay def te waroo ko def nga bàyyi ko mm-hmm. mais fekk mu ngi am ñu naan ñu yi chauffeur yi duñu wax seen bopp du changé mm-hmm. waaw nañ ci changé tali changé comportement bi mm-hmm. comportement bi jël ak ñoom alors